mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci seen xibaaru digg bëccëg bi li ci gën a fës nag ñu mën ko jàpp di ne bi nga xamante ni ministre bi yore ma mbay mi ci vallée bi ci bët gànnaaru réew mi ci tool ya nag docteur Mabou Badiagne daje jàmbaar yi mbay mi nga xamante ne mën nañu fu nekk ci mbayum ceeb gi ñoom nag ñu ne daal pare nañu ngir gunge nguur gi ci autosuffisance alimentaire maanaam ngir ñu mën a moom suñu bopp ci wàllum dund. département bu Thiès di waajal ñaareelu bés bu ñu jagleel set setal mu jóge ci nguur gi mairie bu Tubatul euh, jot nañ ay jumtuwaay yu toll ci benn milliard ci suñu xaalis ay pôle pôle mbalit ay bale ak ay gilet bokk nañu ci matériel boobule war leen yombalal liggéey gi. dogal lu bees li waa direction yu l'impôt jël ci payum juuti gi ñu ne nag taxaw nañu temb ngir xeex lépp luy luubal ci wàllu woowe ñu bëgg nag bépp opérateur économique mën di fay li ko war ci l'impôt loolee nag tàmbali nañu ko àllarba démb fii ci biir réew mi dal leen jàmm yéen ñi safo RTS te di ko seetaan ñu dooree xibaar yi ak li nga xamante ne moo di département bu Thiès nga xamante ne mu ngi euh, waajal rek ñaareeli bés bi ñu jagleel set setal mu jóge nag ci nguurug Sénégal mairie bu Touba Toul euh, jot nañu seeni ay jumtuwaay yu nga xamante ne daal toll na ci benn milliard ci suñu xaalis ay pôle mbalit ay balai ay gilet ak yeneeni jumtukaay yu nga xamante ne rek da leen di yombalal seen liggéey Fatimata Banel matériel bu am solo bi ñu jox commune bu Touba Toul nag mel ni dañ ko boole ci programme bi ñuy wax 3P mu di programme prioritaire de propreté nga xam ne li ko tax a jóg mooy seetal waaye itam gën a ñoŋal nekkinu askan wi ñi ko amal nag ñoo di waa projet de promotion et de gestion intégrée de l'économie des déchets solide ñu koy woowee Promojet matériel bi nag ñu mën ci lim ay peel ay brouette ak yeneen matériel yoo xamante ni bii pour seetal la daanaka mën nañ ko xayma ci milliards ak lu teg mu mel ni kon day ñëw rek di gën a ñoŋal lii nga xamante ni bii mooy nguur gu bees bi teg na ko mu di set setal boo xamante ni bii tàmbali nañ ko ci weer wii ñu génn président de la république décidé ne day jëmmal ay bëss yo xamné ne képp kuy sénégalais sa koñ sa gox ce village fo mëna né da ngay jug sétal sa koñ sétal sa dëkkuwaay and ko population bi lolo waral tay li ñuy jagleel bëss bi ci petit matériel bi nga xamné ne dañ ko fas yéenee population bi jox leen ko ngir ñu mën a yeggali seen yéene ndax xam nañ yéene bi ngeen am ngir seen dëkkuwaay doon dëkkuwaay yu cet Touba nag bokk na ci ñeent fukk ak ñeenti communes yi nga xamante ni bii Promojet mi ngi fay ba tax na maire bi bi mu jëlee kàddoom moom rafetlu na taxawaayu Promojet bu baax waaye mi ngi ñaan ministre bi nga xamante ni woon na fi mu gën leen jàppale ci seen gox bi gën a ñoŋ. monsieur le ministre bëggoon nañ comme occasion la ñëw nga Touba Toul euh, ñu ngi lay sàkku nga jàppale ñu. ci ay projet yoo xam ne ci sa departement la aju nga jàppale ñu ci pour que ñu gën a taaral suñu dëkk lu ci mel ni rond-point bi nga xam ne boo wàccee ci péage bi bëgg nañ ko def comme rond yi nekk Sacré-Cœur yi nekk Dakar ville wala plateau bëgg nañ nga jàppale ñu ci beneen ba nga xam ne moo nekk Tiwaawoon aussi bëgg nañ ci rond-point yoonu Tiwaawoon bi bëgg nañ nga defal ñu ko noonu parce que day gën a taaral dëkk bi te tuubaatul bu taaroo Sénégal taaru may remercier monsieur le maire dégg naa doléance yi nga xam ne wax na ko ci lépp lu jëm ci setal lépp lu jëm ci taaral ak lépp lu jëm ci gën a ñoŋal dëkkuwaay yi la fi fekk te incha allahu rabbi dinañ ànd ak moom signé ay convention direction cadre de vie SONAGED ak PROMOGED dinañ continuer di ko taxaw ci yéene bii mu am ànd ceeg ngir gën a taaral gox bi gën ko defaral ndax kat état central ma ci kaw ministre ba ci kaw du ñoom ñoo mën a wàcc di lépp bu ñu amee maire yoo xam ne dañoo dëggu dogu ci taaral seen dëkk dañuy sawar lool ngir ànd ak ñoom moom meeru Touba bi nag nee na dina def kéemtalaay kàttanam ba askan wi gën a farlu bu baax ci wàllum cet gi waaye itam gën a sàmm seen environnement mi ngi ñaan ministre de l'urbanisme nag mu jàppale ko ci yeneen projet yoo xamante ni bii bu ñëwee ci commune bi day gën a taaral gox bi dañu dellu si si euh, euh, tournée ministre euh, bu yore wàllu mbay mi nga xamante ne mu ngi koy amale fële ca vallée bi ci tool yi docteur Mabouba Djagne, daje na ak jàmbaari mbay mi nga xamante ne mën nañu fu nekk ci wàllum mbayum ceeb ñoom nag ñu ne daal pare nañu ngir gunge nguur gi ñu jot ci wàllum autosuffisance alimentaire Manam dal ñu moom suñu bopp ci wàllum dund ñu ànd ci ak Mbow Eh, ci ne nemmeeku bi mu amaloon ci vallée bu fleuve Sénégal moom jëwriñ ji ànd ak délégation bu takku daje nag ñii di eh, champion agricole yi ñu ràññee leen bu baax ci wàllu mbayum ceeb ak ci wàllu soppi eh, ceeb kenn ci ñoom nag Ibrahima Sall ànd ak ay naataangoom bëgg rek lii état xam ne fas yéene ko amal ci wàllu souveraineté alimentaire ñu ko ci ceeb bi mu am bu baax ba ñoom daal jënd nañu ay matukaay ngir rek jàppale bu baax état bi ci wàllu boobee. autosuffisance du xaalis kese. saxaar mënul dem san wagon. kon donc euh, loolu mu wax tey moom lu ñëpp gis rafetlu tey ci moom apprécier vraiment initiative bi te incha allah rab rabbi euh, loolu pare nañu pour fekk ka ci ànd ak moom pour Sénégal yëpp gis ni tey àgg nañu luñ doon wut. pour ñu mën a mën a entendre euh, vraiment dir yi moom dana woon am parce que lu koy indi mooy modèle bu mu indi léegi ne buñ ko suivre accompagner ko li ñu bëgg ci ceeb danañ ko béy dans le ñun xam nga lan la ñuy demander état nañu dimbali ci ay piste de production nañu dimbali ci ki réfection gros aménagement hydro agricole yi nañu dimbali également ci ci lutte ki oiseaux granivores yi jeex na li ci dess yëpp ñun daañu ko mën defal les champions vont tirer les les les petits agriculteurs. ñi di ndaw ñi aussi nek ci vallée bi di liggéey ci walu uh, ciép ñoom it daal jël nañ engagement bu am solo ànd ak seen i mag ngir rek li état bi bëgg dal ñu mën ko amal ci anam yu jaar yoon. tournée bi man li ma si si ma si jàngat mooy que producteurs yëpp yu ndaw ndawaan yëpp tey ministre bi xam na seeni problème te jàpp naa ne ñi fi nekkoon xëy na problème yooyu lañ doon am parce que daaw ñu xam li petit producteurs yi liy dund. lu baax la parce que dina la permettre nga xam fan ngay fan nga avancer fan nga war a euh, fan nga war a gagner fan war a amee ay donc business plan moom mooy définir lépp. auparavant dañ doon gis ni ministre dañuy ñëw mais dañuy am benn orientation bu nga du ñu rencontrer les vrais acteurs. ki nek dafa ñëw rencontrer les vrais acteurs ba pare indaale canava bu nga xam dafa méngoo ak ñun ci côté yi mu waxé ni fofu la ñuy bëgg tag mbay mi incha allahu rabbi ñun am nañu yaakaar ni autosuffisance dana am jëwriñ ci bam mu jëlee kàddu gi nee na daal naam lolé mun na am état bi na nek seen wet jappalé leen waaye nak foog ñu changer rek doxalin manam dal tek ay plan d'affaires ay business plan ngir lolé mun a am un plan d'affaires c'est un tableau de bord une banque une institution financière ne peut pas te financer banque mënulaa jox ay koppar financé la bu xamul ci lan ngay yëngatu loolu moo tax plan d'affaires am solo. Nous allons trouver les Sénégalais là où ils sont. On va les aider à produire ce qu'ils savent produire et on va les aider à produire mieux que ce qu'ils savent. produire. va les aider à se ñu euh, dans le sens du développement durable et dans le sens de l'économie circulaire. ñoom nag ñii di champion agricole yi di béykat yu mag yi fas yéene àndandoo nekk benn say rek jàppale état bi ba li nga xam ne rek mooy suffisance ci wàllu ceeb bi ñu amal ko naam sax ay digge yu bari jaar na fi waaye ren nag am nañu yaakaar bu baax ak pasteef ministre bi ci wàllu woowee jërëjëf euh, soxna Penda Mbow euh, ñu wax ci tolluwaayu jumtuwaay yi ñu yokkee ko yónnee koppar euh, ci biir espace mois mu ngi jóge nag ci téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom-ñaar ci atum 2018 jëm na ci juróom-ñaar fukk ak mbenn ci atum 2023 mu xaw a néew boo sukkandikoo ci li nga xamante ne moom la ñu mbébétoon waa CEDEAO di ci jéem nag ut ay pexe tax ñu amal ab ndaje waxtaan diggante acteurs yi nga xamante ne ñu ngi cee yëngu l'inclusion financière n'est que lu sol ni di ou itam institution yu banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest mu nekk nag ab levier bu am solo boo xam ni mën nañ cee sukkandiku ngir yokk gi gi itam wàññi lu lépp lu jëm ci wàllub inégalité ci atom 2016 banque centrale de tëraloon ab stratégie régionale d'inclusion financière ci espace UEMOA waxtaan wi ñu a document Sénégal dafa élaborer stratégie nationale d'inclusion financière stratégie stratégie régionale boo conseil de ministre de l'UEMA moo validé en 2016. et une stratégie nationale d'inclusion financière M. le président de la république validé en 2022 donc stratégie la boo sur la période 2022 2026 objectif est de permettre permettre sénégalais yi permettre entreprises sénégalaises yi ñu les services financiers pour créer de, la richesse créer de la croissance Nous avons ay que yu am solo ci stratégie boobule lu jëm ci accès à des services financiers yu askan wi jàngat biñ ci def nak mu joggé ci en 2016 dem ci 71,4% en 2023 biñu défé état des lieux inclusion financière au niveau du Sénégal nous gis que ci nit euh, pratiquement amuñu compte ci institution financière Si les surtout les PME ci pratiquement mën compte dans une institution financière loolu nag problème bi muy posé mooy que euh, dafa am xaalis yu bëri ressources yu bëri yoo xam ne yi moo ngi jaar ci circuit informel yoo xam ne tey ko mënoon a mobiliser tey dina permettre par exemple pays bi muy réaliser plus de croissance et que dépendance bi par rapport aux ressources étrangères gën a baisse. et l'objectif fondamental mooy que ñu atteindre euh, ci téeméer bu nekk pour population bi ñu mën a am juróom benn fukk ak juróom en 2026 et pour PME PMI également sur téeméer bu nekk ñu mën am juróom-ñeent fukk yi. li nag ngir wàññi ko bu baax faw ñu sukkandiku ci li ñuy woowee éducation financière ndajëb ñaari fan bi nag dina tax ñu mën a waxtaan jëmali ko itam ci défi émergent yi nga xam ni war nañ ko jël en compte ngir gën a renforcer lépp lu jëm ci wàllu inclusion financière waaye itam yokk njeexital bi muy am ci askan wi waaye itam croissance PME ak PMI. ba tey ci wàllu koom dañuy euh, wax li nga na ci direction générale euh, des impôts euh, et domaines ñoom nag dañu rek bëgg a yokk li nga xamante ne mooy xeex bépp bu nga rek dafa jëm ci waayu wàllum ak juuti loolee nag jël nañ ko dogal tàmbali ko ci àllarba démb mu mel ni rek dañu bëgg rek di importateurs yi ak ñii di opérateurs économiques yi rek di fay li nga xamantene mo len mo moo euh, euh, ci euh, seen ay yëngu-yëngu jëm ci article 220 bu code général des impôts et domaines Amadou Diallo mo ñu ci indi ay leral boy seet si Walu lempo sunu rew war na see def ay djego yu gëna am solo ñenn ci sénégalais yi duñu déclarer manam duñu xamlé wala sax duñu daldi fay li nga xamante ni moy l'impôt ngir indi saafara si loolu direction générale des impôts et des domaines dafa daal di taxawal li ñuy dippee PCF di prélèvement de conformité fiscale li ko tax a jóg mooy fexe ba daal di jubbanti lii di l'impôt ci secteur importation yi. PCF su ma koy tënk rek euh, ay pexe yu ñu teg la yoo xam ne naan ki nga xam ne dafa bëgg a importer dañuy xool ndax mu ngi déclarer wala mu ngi fayee impôt buy déclarer di fayee impôt ñu ne ko yow PCF bi soxalu la ki nga xam ne nag. du déclaré wala du fay ay impôt ni mu ko waree ñu ni ko yow kat boo bëggee importer ñaar mooy mën a am soit da ngay dem nga régulariser sa situation def ni ñëpp di déclaré di fay wala su nekkee mënuloo def loolu nag dinañ la teg taxe boo xam ni yow kese yaa koy fay keneen kiy déclaré du ko fay. taxe boobu lañ tuddee PCF prélèvement de conformité fiscale et 12 pour cent lay doon ci valeur marchandise yi nga importé. ñi nga xamante ni nii ñooy importateurs yi maanaam ñii di jëlee bitim réew di dugal si sunum réew li leen war si wàllu lempo nekk na ba tey lu état bi war a topp wante am na ay produit yoo xamante ne nii bokkuñu ci bile système de prélèvement. prélèvement de conformité fiscale ñi koy fay mooy ñiy importe mais nag dugaluñ ci marchandise dañ jàpp ni yenn marchandise yi nga xam ne moom la Sénégalais yi di gën a jëfandikoo ñu koy tuddee bien de première nécessité yooyu moom dañu leen cee génne ndax seetlu ngeen ni nguur yi fan yi jël na ay mesures ngir wàññi njëkk yi kon xam nga doonu logique nga jël yeneen di ko dolliwaat ci loolu moo tax yooyu moom génne lañ leen ci alaakulli li ci des mooy ki nga xam ni day importer ay auto loolu tamit génne nañ koy si parce que douane am na dispositif bu ñu tuddee guichet unique boo xam ni dinañ mën a contrôler loolu lépp beneen bi ci mujj nag mooy ki nga xam ni xaj na du liggéeyam mais day importer loo xam ni valeur bi bariwul weesuwul 10 millions importation yi tamit PCF bokku ci. ci bile ndogal administration fiscale lim si namm mooy xeex bu baax wàllu forot waaye tamit évasion fiscale maanaam lépp bi ñu war a fay te kenn du xam fi mu jaar waaye tamit dindi gàkk-gàkk yi nekk si sunu koom-koom. donc mën nga tënk rek ni PCF moom ki ko fay mooy ki daa ki décidé boppam fay waaye ki nga xam ni daawul fay impôt te nangu naa dem régulariser dinañ ko fexe ba du fay PCF ki nga xam nag daa na fay impôt naturellement kooku tamit PCF soxalu ko. prélèvement de conformité fiscale liggéey la boo xamante ni nii ñi ko sumb bokk ko mooy direction générale des impôts et des domaines ak direction générale des douanes. ñaari administration yooyu dañoo mas di liggéey joxante loxo ngir fexe ba recette yi jëm ci état bi te askan war ko jariñoo mu gën a ñoŋ te mucc ayib. loolu di njëriñ li nga xamante ni rek euh, mooy jóge ci PCF boobule euh, ñu nar ko tàmbali nag euh, niki démb tàmbali nañu ko niki démb àllarba ci biir réewum Sénégal yépp loolee la Aminata Mbengue Fall daal dañoo wax. PCF wala bokk prélèvement de conformité fiscale mu nek nak ab dispositif bo xamni administration fiscale mom moko tek ngir ñaar opérateurs yi économique yi ngir ñu nek en règle ni ko article 220 bis du code général des impôts prévoiré ab prélèvement bu 12 nak dinañ ko def ci importation yi nga xamni ay nit ñom ñoko amal ñom nak defu ñu seeni obligation déclarative fay ñu seen impôt wala bok taxe ñooñee la PCF bi di dal seen kaw ndogal bi nag li ko wundu mooy fexe ba xeex lépp li nga xam ne moo di fraude wala boog évasion fiscale waaye itam fexe ba yemale ñi nga xam ni ñoo di acteurs économiques yi. PCF nag di dugal loxoom bu baax ci yaatal assiette fiscale bi loolee di tax ñu mën a dajale koppar gu gën a bari. am na ay produits yoo xam ne nag PCF bi soxalu leen bokk na ci produit de première nécessité véhicule automobile wala bok ay marchandises nga xamni valeur en douane bi wessoul 10 millions de francs CFA. PCF amul benn taxe bu yes wala frais supplémentaires bo xamni da koy indi. ci dogal lolé sax euh, lañuy euh, descendi ci numu gëna gën andi yaatoo andilaat waxtaan gi nga xamantene ne sëñ sek Seck amaloon na ak kii di docteur Abdoulaye Gningue di inspecteur des impôts nekkoon ganu xibaaru marax yu démb ñu tewlu len PCF maanaam prélèvement de conformité fiscale boo ko déggee dafa nekk du lempo du lempo du taxe du redevance te di jumtukaay boo xam ne dañ ko andi pour mën a dimbale ñi nga xam ne ñoo ne ci secteur informel bi ñu daal di mën a formaliser wu maanaam mën a commencer di fay seen i lempo comme ni mu waree ndax boo xoolee euh, écosystème bi nga xam ne moom lañ am suñu écosystème fiscal secteur informel dañ cee bëri. danaka bo xolé 90% vingt dix pour euh, contribuables yi dañu nek ci secteur informel waaye ñu amat benen galancor maanaam même ci biir secteur formel bi ñu am ci benen problème lu ñuy les pratiques informelles du secteur formel ku yooyu yëpp boo ko muy andi ay perte de recette ba taxna na taal euh, taal bu téye tak nu ne nga koy uppé moo tax ñu créer lu ñuy wax le prélèvement de conformité fiscale nga xam ne day dimbali contribuable ñu formaliser wu waaye xex lolu ñuy wax évasion ak fraude fiscale xeexit manam li nga xam ne euh, wuté ci euh, euh, opérateur économique yi ñu yamalé len ñu yemale leen ndax ñi di déclarer ñi déclarer wut lolu mom aussi jaaduwut donc lolu dal mo wundu prélèvement de conformité fiscale. loolu itam bëggon nañu xam gannaaw lolu mo doon seen jubluwaay yan koppar ngeen japp ne mom ngeen nisere dajalé ci lolu nga xam mom ngeen bëgg dab dabal. xaruñ ci dara nag. pc buñ sañon duñ ci am dara ndaxte bo xolé wax nañ ne moy importateur yi nga xam ne. e ñu ngi ñëw ci cordon ñi te ay la yéwén déclaré wuñ waaye xaaruñ ci dara ndax buñ sañoon ñëpp dañuy déclaré ndaxte bu képp koo xam ne rek yaa ngi déclaré say impôt di ko fay na mu waree du ñu la laaj prélèvement de conformité fiscale du ñu la laaj PCF moo tax xaaruñ ci dara dara dara te lépp luñ ci am sax échec lay doon ndaxte ñun boo xoolee dañoo am travail de conseil am travail boo xam ne d' accompagnement moo tax contribuable yi importateurs yi dañuy fexe ba nga xam ne ñoom dinañu mën a sàmmoo ak seen àq ak seen i yelleef ci mbirum déclaration ak mbirum paiement l'impôt loolu bu amee ay la kenn du leen laaj prélèvement de conformité fiscale nga xam ne wuñ ci dara dara dara bugguñ ci am benn koppar ndax lépp luñ ci am rek échec lay doon euh, bu ñu ko sàmmantewul mooy laaj dañ bu ñuy importer dañ leen di teg daan douze pour cent douze pour cent lañ leen di laaj fukk ak ñaar fukk ak lañ ci lañ ci lañ ci jël ci marchandise moo tax. ci ca valeur marchandise. ca valeur marchandise te du tere ñun impôt yi dinañ saytu ba xam kii lan moo tax nanguwul déclaré ba léegi loolu du du ñu tere dem saytu ji ko xooli ko mën koy contrôler ba xam moom loolu mu def noonu lu ko wund. boo xoolee euh, wax nañ sax ne euh, PCF bi ñu dul déclaré la waaye ma leeral fii ne PCF bi boolewuñ ci ñi nga xam ne dañuy euh, jënd ak jaay. li nga xam ne askan wi gën na ko yittewoo ñu koy wax denrée alimentaire de première nécessité yi nga xam ne fan yi boo xoolee am na politique boo xam ne euh, autorités yi def nañ ko ci ci wàññi njëg yooyu bokkuñ ci PCF bi waaye ñi nga xam ne dañuy l'importer ay woto bokkul tamit ci PCF bi waaye képp koo xam ne da ngay andi ay marchandises yoo xam ne njëg la néew na fukki million maanaam Euh, inférieur égal à dix millions néew na fukki millions ñooña également duñ leen boole ci PCF bi kon nga xam ne kon euh, du nasaxal kenn ndaxte dañ leen di wax ne leen ay la yéwén lii da ngeen ko war a def te te te PCF bi am Sénégal amul euh, nga xam ne laajul benn frais laajul benn frais ba pare aussi laajul benn perte temps ndax lépp dañ koy jaarale ci mbaalu jokko yi ba nga xam ne da ngay déclarer Euh, douane automatiquement euh, ñu ñu ñu euh, duñu la laaj sa PCF ndax dafay fekk yaa ngi ci liste bi nga xam ne impôt da koy yónnee duwaan te toujours ci mbaalu jokko yi lay lay jaar. naka la ñuy def ba dàqal jëfandikoo yi sinébar ci biir école yi di ci loolee lañu woote ab waxtaan diggante ñëpp ñuy yëngoo e, ci njàngale mi e, ci CM Samba e, ñu amal ko nag ci wàllum màggalum fanweer ak juróom-ñaareelu édition ay bés yu ñu jagleel xeexum sinébar fii ci Sénégal Fanta pencho ci lii di sinéebar ci daara yi mu di lu am rawatina ci jamono ji nga xam dañu gis ay xétu drogue yu bess jamono ji yalla cannabis cannabis mom xam nga de fait de l'accessibilité mais gis nañ depuis un certain temps ay apparition nouvelle drogue ay souche ay ay ay tram ay ay tramadol ay yu ken xamul yo xamantene vraiment mi ngi def apparition drogue yi mom man j'ai dit tout j'ai dit dans les interventions que drogue drogue nañu xaar yenen drogue yu bess parce que ñi nga xamantene dañ koy jaay. dafa am lu leen ko jaral xaalis moo leen ko jaral ñun tamit lu leen xaalis jaral nañu ko defar ak aar suñu njaboot jaral bu ñu leen wàcc ñoom le terrain ñoom ñi ngi def lu nekk pour yàq pour am xaalis waaye ñun nañu def ñun tamit suñu kéemtalaay kattan pour aar suñu askan parce que loolu moo ñu fi bàyyi. xeetu drogue yi euh, biñ ci gën a ràññee mooy cannabis parce que xam nañ ne ne yamba mooy yamba ndax xam nañ ne yamba mooy drogue bi ñuy gën a utiliser fii ci Sénégal. effectivement dañ koy euh, rencontrer ci milieu scolaire euh, étude bi ñu en 2019 bi y avait au moins 3,4 euh, d'élèves qui ont une fois eu à consommer donc du cannabis Lors dal lañ ci retenir donc lolo tax aussi ñu union def de la prévention au niveau donc des établissements waaw. ci jotaay bi kenn ku daan jëfandikoo Sinébar muy xamle ni am na drogue bu bees bu ñu tuddee couche ndaw yi mën caa jot ci njëg gu yomb. drogue bi mi ngi tudd couche couche couche la tudd te. kilifa yi xam naa ne bàyyiwuñu ko xel te it bàyyiwuñu lu muy circuler mu ngi circuler nag si ñi nga xam ne course bi nag moo gën a moins cher moo gën a dangereux lii di yàmba lii di lu ñuy wax suus lii di ñu naan sàngara dorog boobu noonu moo gën a metti sax que zombie bu ñuy wax dañu bëgg taxaw xeex sensibiliser jeunesse bi ñu yeewu drogue gu takku gi ñuy teg loxo di wane rek ni réewu Sénégal wàllu drogue bi jéggi na fi dayo mo waral ku ci nek war ci duggal sa loxo ngir ñu arandi askan wi rawatina ñi di nongo daara yi. bëgg nañ aussi kilifay diine yi ñi wax ak ñom les prêtres les les imams les délégués de quartier les bajjenu gox tous les leaders communautaires ñi sensibiliser leen former leen ba ñu mën a delluwaat ñoom ci askan bi ñom ñep kenn ku ci nekk. mën a démultiplier la communication boo gisee apparition nouvelle drogue yi nga xamante amna ci drogue yu bari yo xamante ne jógewul bitim rew am na ci drogue yoo xam ne jógewul bitim réew drogue yu bari am na ci ñoo xamante ne fii lañ koy defaree léegi nag loolu dafay tax nag ñu gën a takkaat suñu laxasaay ay ndongo daara yi nga xam ne ñu ngi bàyyindi xel bu baax ci loraanga yi si nee bar xam naa na la indil ay dof mën na la rey ne parce que boo utilisé dorog dootoo nekkat dootoo nekkat yow en tant en tant nit nga yaakaar leneen la sànq ñi wax nañ ko nee nañ mën nga utiliser dorog am na ñu bëri mën nañ rey gis nit yaakaar ay rab wala ay jinne lañuy gis xam naa ay kuus ay suus. di ñaax xale yi ndax vraiment léegi dëkk bi yàqu na yàqu boo xam ne xale yi dañuy def dañuy jëfandikoo drogue te vraiment xamuñu drogue euh, ngaañ gi si nekk. en tant que parent dañoo tiit parce que vraiment li am si dëkk bi dafa doy waar surtout léegi xale yi ñu neex a yóbbaale. comité interministériel de lutte contre la drogue bi fas yéene wëyal liggéey bi ci bépp daara ci biir réew mi ngir yee ñi nga xam ne ñoo di ndongo daara yi ci lépp lu jëm ci loraange yi nga xam ne lii di sineebar mën na leen ko jural. joueur de foot euh, bi nga xamante ne moo di Sadio Mané la ñu tabb bees mu nekk ambassadeur u DER di délégation à l'entrepreneuriat rapide euh, ñu dalal ko nag euh, ngir mu mën a jaay ak i taxawu ndaw ñi ci sumb seen xëyub bopp ànd ci ak programme yi nga xamante ne rek DER/FJ na ko ñu ngi ko doon nag def ci bés yi nga xamante ne kuréel gi ubbil na ko askan wi ubbil na buntoom ay askan wi Amadou Diallo Sadio Mané léegi mooy ambassadeur international sénégalais bi dañ ko tànn ngir mu nekk ambassadeur DER FJ. mu bokk ci lépp luy fësal jëf yi DER di amal waaye tamit gunge leen ngir ñu am bu baax ay ressource tànn bi ñu tànn Sadio Mané li koy expliquer mooy gunek bambale gi ni mu fonkee réewam. ni mu taxawee temm ngir jàppale jigéen ñeek ndaw ñi fii ci Sénégal. Euh, voir plus haut je flots un jeune Sénégalais, famille euh, parce que nous, avons un hôpital une école peut-être pour pour la mais je pense que nous, nañ de aussi moi j'ai à cœur de d'être bien projet. Euh, euh, projet euh, comme ambassadeur ma ne ko mais loolu c'est ki ñuy dippee héros national di Sadio Mané dafa nekk ab modèle maanaam ku ñuy roy ñeel ndaw yi Sénégal loolu nag dinañ sukkandiku. ngir mu mën a gunge ndaw ñi ci lii di entrepreneuriat. tey nag dafa bëgg dafa war a nekk entrepreneur football baax na mais nga entreprendre ci sa réew fexe nga liggéey ñeneen liggéey dafa am solo man bi ma koy xalaat mooy keroog bi ma gisee mu dem ci sunu premier ministre waxtaan ceeg moom premier ministre bëgg lool. wax ma itam bi ma ko waxee ni ko dama bëgg Sadio nekk suñu ambassadeur mu ne man dinañ ko jàppale te yéen it ngeen ko jàppale dinañ ko def ñu bëggoon jeunes yi nga xam ni ñoo nekk ci Sénégal yépp te ñun ñu war leen a jàppale pour ñu nekk ay entrepreneur ñu roy ci Sadio Mané ñu jox leen ko ngeen def ko modèle ñu jox leen ko ngeen jàng ci jikkoom ñu jox leen ko ngeen jàng ci li ko Sénégal jaral DRFJ daal dina dalal lu ëpp ñaari téeméeri visiteurs ci bi ñuy amal bile journée portes ouvertes public bi jot na am ay xibaar yu yaatu si nan la DER di liggéeyee ak financement yi nan la ñuy def ba jot si. équipe bu DER ñoom tamit bàyyi nañ xel bu baax li public bi wax ngir ñu gën a mën a ñoŋal seen liggéey. jërëjëf Amadou Diallo ñu ñëw ci wàllum tàggat yaram stade bu euh, Bambey daanaka léegi mu pare euh, loolee nag ki ko yëgle di ministre bi nga xamante ne moom la dénk wàllum tàggat yaram ak ndaw ñi Khady Diène Gaye euh, demoon na nag nemmeeku maison de la jeunesse bi nga xamante ne jagleen nañ ko ndaw ga ca gox ka Mamadou Sakine. dalal bu ànd ak yaakaar bu rëy moom la jëwrin bu ñu dénk tàggat yaram fekk fii ci Bambey. seen bëbët mooy ñu ubbi stade bi lu mu gën a gaawee. depuis 2019 ce stade n'a pas accueilli de match. pourquoi à cause d'une réflexion. 2019 ba tey stade bi kenn joué fi benn match lu tax nee na yooyu ay fii dañ ko doon defaraat defaraat boo xamante ne nii ay attangi nii mënut a yegg te loolu kenn xamul noo koy tuddee bëgg nañ ci nu mu gën a gaawee suñu stade bi ñu jotaat si. recevoir notre stade. ci saa si ministre bi jël na dogal. stade bi dina tëj ji ay buntam lu yàggul dara. loo xamante ne fukki weer waru ko woon jéggi depuis 2019 2020 2021 fukki weer waru ko woon jéggi ñu ñëwoon ñu ngi tey ci lan 2024 man boobu ma simple agent donc laa woon ca ministère des sports ba tey jii yàlla teg ma fi 2024 et demi te parewul loolu nag bu ñu fi ñëwee tey jii lu ñuy wax mooy te surtout li fi jot a am mooy dañ ciy taxaw tem te lépp li nga war a xamante ne war nañ ko ci def ñun danañ ko ci def gannaaw stade bi ministre bi def na benn doxu nemmeeku ci maison de la jeunesse ak citoyenneté bu ñuy tabax fii ci Bambey bërëb bi nguur gi da ko jagleel tàggat ndaw ñi. Là, nous en train de piloter. Et si vous voyez que les travaux se sont accélérés. jamono ñi ngi piloter projet bi bu baax comme ni ngeen ko gisee nag ñi ngi accéléré lu ñu war a def yépp def nañ ko ci document bi ngeen di gis def nañ ci délai bu mujj.

Euh, lii di nga xamantene Modi euh, moo di wàllum football euh, ñu wax ci tirage au sort bu éliminatoire bu Coupe d'Afrique des Nations 2025 amal nañu ko tey ci suba fële ca Johannesburg ci Afrique du Sud mu mel ni Sénégal bokk ci groupe L nara am ak adversaire ñi di waa Burkina Faso ak Malawi ak tamit Burundi loolee la ci tirage bi nga xamantene amon na ci boori midi 30 fofé ca Afrique du Sud. Sénégal di dalal les championnats championnat d'Afrique catégorie euh, junior bu kung fu wushu euh, mu ngi nar am nak juróom ñenti fan ba fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2024 euh, ci Marius Ndiaye ngir nak organisation bi gëna mëna jaar yoon fédération bi yore discipline bi dal nay jàkkaarloo ak teskatu xibaar yi ñu and ci ak François Seck ak Amadou Diallo. bile xew-xew xamni tundu Afrique yëpp mom lañuy xaar dina dajale lu ëpp téeméeri combattant yu jóge ci fukki réew ak ñaar Sénégal bëggula des benn yoon gannaaw ndax bëgg naa yóbbu ay combattant yu bari lii nag nekk ab waajal bu mag ñeel li nga xamante ne ni mooy JOJ di Jeux olympiques de la jeunesse ca atum 2026 muy benn championnat d'Afrique boo xam ne dafay dajale tout tànk yi muy ay junior am ay minime ay cadet xam ne seen at ñu ngi koy natt ci fukki at ak benn fukki at ak juróom ba fukki at ak juróom-ñeent yooyu yëpp ñu war a daje fii ci senegal pour ñu mën a def li ñuy wax championnat d'Afrique boobu. yor sport bi ñu ngi ànd ak ñoom ñu ngi ñuy gunge ñu ngi appuyer di am ak ñoom ba fii ñu toll nii réeréew ñu ci dara ñu ngi ciy dem ñaan yàlla nag ànd ak ñoom ci loolu ba keroog muy ba keroog yëf yi di jeex. sixième édition bi dina tax senegal mën a wane bu baax li mu mënee. ñaar fukk ak juróom benni gone ñu ngi leen di tàggat bokk ci ñoom fukk ak ñeenti combattant fukk ak ñaar yi dinañ bokk si li ñuy dippee démonstration kata ngir fexe ba diir biñ fiy nekk ñu am mbégte ak contentement am na ay activité yu bari yu ñu prévoir dafa am benn daje boo xam ne dafa am expert chinois yoo xam ne war nañu jóge en chine ñëw fii ci ndigalu fédération bu bu chine ànd ak également fédération nationale pour ñëw def fi benn camp d'entraînement camp d'entraînement nag boo koy dégg mooy danañ ko def le 3 ba le 6 ci weer wi ñu ne. ci juróom-ñaari fan yi dafay am benn congrès congrès bu mag nag boo xam ni experts chinois yu ñuy wax nii jóge Chine ñëw ñëw fii ñoom ñoo ko fas yéene def ñu fas yéene waxtaan ci wàllu wushu ci Afrique. Sénégal bi mooy nekk ñetteelu participation bëgg na see def nag lu gën. la mu defoon Algérie ci atum 2022 xam ne sunu réew amoon na fa juróomi médaille fédération sénégalaise bu kung moom nag li mu bëgg mooy organisation bi mucc ayib te jaar ci yoon Madeleine, nous ñëwaat ak yéen ci xibaar bi nga xamante ne dafa tirage au sort euh, bu éliminatoire euh, Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 ñu ngi ko doon amal tay ci suba Afrique du Sud ca Johannesburg mu mel ni Sénégal bokk euh, groupe L nara bokk poule bi rek ak Burkina Faso Malawi ak Burundi ñu jeexale ak euh, yégle bi nga xamante ne tiis la am démb ki nga xamante ne moo di homme d'affaires Abdoulaye jaw di Baba Diaw itoog euh, ci tur googu lañ ko gën a xamee génn àdduna euh, démb gannaaw feebaram bu yàgg tey nag ñu dénk ko fële ca Thiès levée du corps bi amoon tey ci suba fële ca hôpital principal bu Dakar ci kanamu njaboot yi xarit yi ak tamit ñi nga xamante ne rek ay

moo di directeur général bu RTS ak personnel bi euh, ñu ngi koy rekk jaale njabootam di ko ñaanal euh, yàlla xare ko arjana firdawsi mbokk yi lii moo fi ruusoon ci ay xibaar maamoon nag mbégte di leen koy jébbal euh, di leen jaajëfal ci teewlu gi te di leen ñaanal kendalu jàmm